seen mbokkam daara Alioune Cissé mooy am mbégte di def di leen nuyu te di leen ziara seen jotaay bi nga xam ne baaxoo woon na di ko ànd ak yéen ñu ngi tuddee majaalisul muy jotaay la boobu am na solo ndax xam-xamu fiqh moom la shaa'ir bi di wax naan iza zu ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi awla bi ixtisaasi ah di nee na boroom xam-xam bu dee bay jëloo xam-xam nee na xam-xam bi gën a yeey ci mu jegewoo ko mooy xam-xam bu fekkalu ci lu mel noonu rek leen jéem a ñëw di jéem a jàppalante ko nag ci téere bi ñu tuddee al axdariyu fi ibadat mazhabi malik radiallahu anhu def naa ay gis nag yoo xam ne émission bi xawoon naa taxaw ba yenn ci ay mbokk ñu ngi doon woo di ñu ko laaj waaye nekkoon ci ay liggéey ak di mu gën a rafet moo ko waral mais alhamdulilah gën sawaat na ci jàmmoon biñ fiy mujj nag ci borom téere bi ginnaaw boo xamee ne def na ko comme ni ko borom téere yi baaxoo defee commencé seen téere ci tudd yàlla buñ paree julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duggoon naa ñun ci wàllu tuub ak charte yi tax mu wér ak yu ni mel. ginnaaw bi diggoon naa ñun ci jikko yi nga xam ne dañuy bëgg doomu aadama jikko woo ko ci jikko yi rafet waaye naka noonu tamit ak jikko yi nga xam ne doomu aadama dañuy bëgg mu bàyyi ko ndax ñaawaay ga ginnaaw loolu nag duggoon naa ci wàllu ndox. waaye nag ñuy bëgg a dikkal ñu ci yenn ci ay masa ay masa yi lu jëm ci wàllu fettoon mooy fi ñuy waxee naan iza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha fa in tabasa ghusila thawbu kulluhu kon suñu bind tey mi ngi war a commencé foofu kon subhanaka laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka antal alimul hakim mu ne iza ta'ayyanat yi su ràññee ko an-najasatu sobe mu ne ghusila fóoteef maxalluha barab ba loolu mooy lan nee na nit ki soo xamee ne sobe taq na ko waaye moom nii gis su sobe si taq amaana benn espace bu ndaw ci la si taq moom gis na ko boobaa day jàpp foofa rek dem fete ko sobe si dañ mu dem yoonam ba mënu njëkk bi mooy isa taayinat su ràññee ko an najaasatu sobe xusila fóoteef maxalluha barab ba kon ba mënu waaye ne fa in tabasat bu dee dafa xusila fóoteef ak taw bu yére ba kulluhu lépp bu dee nag sobe si dalaa laal waaye nag taxamoo fu mu laal sobe si laal na la ak amoo ci benn sikki sàkka waaye nag li sa problème mooy yow xamoo fan la sobe si laal boobaa nee na xusila taw bu kulluhu boobaa nag dangay simmi yére bi yépp dem fóoti ko ba mbaru ñaareel bi bu njëkk ba moom dalaa laal nga xam fi laal fi laal nag ngay jàpp dem fete ko dem sa yoon waaye bu ñaareel bi nag dalaa laal mais xamoo fi mu laal boobaa kon da de dem simmi yére ba yëpp dem fo ni ko ba tey ñu kon ne man waman sàkka képp ki sikki sàkka fii asaabati najaasati ci sobel laal ma wala laalu ma mu ne waman sàkka képp sikki sàkka fii asaabati najaasati ci sobel laal ma wala laalu ma mu ne nadaha naka wis loolu mooy lan mooy mbokk mi dafay dox amaana ci mbedd bi dox gis na ndox moo xam ne ndox bi ndoxam sobe la moom amu ci sikki saaka wóor ñu ko dox bi moom ndoxum sobeel ndax xam na ko waaye nag dafa romb am na ñàkkul oto bu jàll ndox mi pis léegi nag moom mi ngi sikki saaka ndax ndox mi laal na ma wala laalu ma boobaa luy àtteem yaakaar ne ndox mi na ko ndox mi ndoxum sobeel wóor na ko waaye liy problème am mooy ndox mi laal na ko wala laalu ko boobaa day dem wut ndox fi mu ndox mi war na faa laal ah, mu dem wis ko fa ba mooy bu ñetteel bi mooy wax ne wa man sakka képp ki siti sàkka fi asaabati najaasati ci sobee laal na ma wala laalu ma mu ne nadaxa nadam wis fi nga xam ne yaakaar na dama war na faa daal ba mu mag ñetteel bi mu ne wa in asaabahu bu la jotee mooy bu la laalee shay'un dara sakka ngay siti sàkka fi najaasatihi ci ma laal sobe la wala du sobe mu ne falaa nadaxa alayhi kenn du ko wis loolu mooy lan mooy yow ngi ci mbedd mi yaa ci kaw suuf terrasse nga dox dox ba ci yàgg ne am ndox bu jugee ci sa kaw ñëw laal la léegi nag yow ndox mi laal na la waaye ndox mi xamoo ndoxam laal la boobaa islam da lay wax ne rafetal njort nga dem ndax cosaanam ndox dafa laal mooy ndox mi daa jugee ci kaw ñëw laal la mais yow xamoo ndox mi ndoxam laal la boobaa islam da lay wax ne rafetal njort rek nga dem waaye nag boo fa nekkee di compliqué na xaaral dugg laaj waa kër gi ndoxam laal la boo duggee bu ñu la waxee ndox mi ndoxam kon ñeenti masala yaa ngi noonu yu bokkul la taxaw a jegewantoo bu njëkk bi mooy sobe da laa laal xam nga fi mu laal da ngay jàpp foofa nga dem fóot ko fi mu laal kese boobaa yërëm yépp ngay dem nga fóot ko bu ñaareel bi bu ñetteel bi nag mooy ndoxam sobe nga romb ndox mi moom tis na léegi yaa ngi sikki ndax laal ma wala laal ma boobaa nee na fi nga jàpp na laal na rek ngay dem ñu wis sa baat bu ñetteel bi mooy yaa ngi dox ci mbedd mi am ndox mu jugee ci kaw tuur sa kaw xamoo ndoxam ndoxam lan la boobaa islam da lay wax ne rafetal njot la nga dem bu fa nekk di jéem a jënd ndox mi ndoxam lan la loolu mooy atte yi ko mi continué ba tey mu ne wa man tadakkara képp ku fàttaliku an najaasata sobe wa huwa de moom bi mu koy fàttaliku fi salaat mi ngi ci biir julli mu ne xataa day dagg julli bi képp koo xam ne da nga tabaat julli bi nga jullee ba ci digg ba sa xel daj ne yow mi yére yi nga sol daa am sobe mu ne luy àtte bi mu ne da ngay dagg julli dem defar jiwaat uti na njëriñ yoo xam ne yu laam la mbir mi da dañoo dañ kaa a ne ko ndax ko faw mu ne déedéet illa an yaqaafa ndare bu dafa ragal xuruuja waxtu génn waxtu wa mu ne nag bu dee ragal nga ne boo naree dem simmi yére yi dem di defar jiwaat balaa ngaa ñëw waxtu dafay passé moom borom téere ne boobaa kon na nga julleeg sobe si moom loolu la gëm ndax te masal la boo xam ne am na yu wutee waaye moom borom téere bi dafa bokk ci ñu gëm ne ah dab waxtu moo gën dab laa moom loolu la gëm noonu am yeneen ñu naan dab laa dab laa moo gën dab waxtu kon li nga doon dama dee mun wa man salla képp ku julli biha ànd ak sobe naasiyan tat fekk daf koo fàtte wala tadakara mu fàttaliku ko baada salaatihi ginnaaw ba mu sëlmalee aada day bamtu fi waxtu ca waxtu wa loolu mooy lan képp koo xam ne da ngaa julli ba pare bi nga jullee ba pare sa xel dañ ne yow mii de di nga julli yéen yi nga sol di julli dafa am sobe mu ne luy àtte bi mu ne boobaa bu dee waxtu wa passé gud da ngay dem nga bamtuwaat sa julli dem defal jiwaat dem bamtuwaat sa julli waaye li ñu déggee ci ne kon bu dee waxtu wa ah, ndax boo ci kanam téere dañ la wax ne fépp fu ñu la waxee ne bamtu ci waxtu wa rek mooy bu waxtu wa jàll rek jégal nañ la ko yow mi nga xam ne da ngaa julli tàkkusaan nga dem ba jenn sox sakkan dañ ne yére yi nga soloon bi ngay julli takkusaan daa am sobe waaye fekk na jënd sow ñi gën ne ko waaye bu dee da ngaa julli takkusaan cinq heures wala cinq heures nga dem ba ay six heures fekk jënd sow bu sakkan lañ ko da dem nga defaral jiwaat ndax na ko boobaa da ngay dagg dem ah defaral ah, lu dul ne boo ko defee balaa ngaa ñëw fekk waxtu waa weesu kon ñaari masala yooyu loolu leeral xam naa ñu ne loolu ñu gën cee jaaraat ci am ci anam ah, ba basal mu ne isa daa yi na ci sulañee ko an najaasatu sobe mu ne bu si la ko def mahalluha bara ba sobe si laal mu ne fa in tabasat bu dee dafa lënd fi mu laal xamoo ko dafa laa mu ne bu si la dama fóot asaw bu yére ba kulluhu yëpp mu ne wa man sàkk képp ki sikki sàkka fi asaabati najaasati ci sobe laal na ma wala laalu ma mu ne nadaxa na wis fi mu yaakaar sobe si laal na fa mu ne wali asaabahu bu la jotee bu la laalee shay'un dara sàkka ngay sikki sàkka fii najaasatihi ci li la laal sobe la wala du sobe mu ne falaa nadaha alayhi jël wis jéggal nañ la ko mu ne wa man tadakkara ku fàttaliku an najaasatu sobe wa huwa de moom bi mu koy fàttaliku fi salaati mi ngi ci biir julli xataa naka ñi ne ko ba xaw mu ne déedéet illa an yaqalafa lu dul dafa xóoloo nga waxtu yi génn waxtoom léegi ma ragal ne bu demee di dagg julli gi dem di defari jiwaat balaa ñëw waxtoo day passé boobaa kon nee na na julleeg sobe si mu ne wa man salla képp ku julli biha ànd ak sobe naasiyan da fekk daf koo fàtte wa tadakkara mu fàttaliku ko ba'da salaamihi ginnaaw mu sëlmalee mu ne aada na bamtu julli ga fi dox ca waxtu wa kon da bu julli na ba pare xelaat ne moom daa ànd ak bu ko xelam dajee wa jeexawut day dem mu bamtuwaat julli gi kon bu waxtu wa jeexee moom jéggal nañ ko ko jëlu faa nekk di bamtuwaat kon bi ngeen ñoom xam a kon ñi ngi di wax li ci leer yàlla la ñuy di wax ak yéen la ah, sant Oustaz Sane Diallo bi nga xam ne moo ngi nekkaloon ci technique bi ah, naka noonu tamit di woy di jëlee defal mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci site bi di wax ne ngeen woy di abonné kon mi ngi noonu haza wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.